Paris ca réewum France ci université mu ndakaaru tase woon na fa ak xaritam Souleymane Ndéné Ndiaye ñu woon ay dëkkandoo Macky Sall bokkoon ci AJ/PADS ba muy ndaw ba mu pare njàngam ca France dellu si fii ci réew mi ca la dalee dugg PDS Petrosen dalal ko ci wàllum liggéey ci atum 1998 mu jiite convention régional PDS bu Fatick ak cellule initiative stratégie ab kuréel bu ëmb ay cadre PDS bi alternance dikkee ak nguuru Abdoulaye Wade Macky Sall jiite Petrosen ñu tabbaale ko conseiller spécial mu doon xelal Abdoulaye Wade ñeel énergie ak mine diggante 2000 ak 2001. 2002 mu wuutu Abdoulaye Bathily ca ministère ba mu nekkoon ci gouvernement Mame major booy ñu tabbaat ko ministre d'État gannaaw ba ñu ko dénkee ministère des mines énergie ak hydrolique ca gouvernement Idrissa Seck mu woon jëwriñ gi yoroon ministère de l'intérieur ak collectivité locale boole ko nekk porte-parole bu gouvernement bi loolu ca atum 2003 ba bi ko fa Ousmane Ngom di wuutu ci atum 2004 ci at moomu la ko Abdoulaye Wade def premier ministre ba keroog Cheikh bu Soumaré di ko wuutu ci 2007 2007 googu lañu ko fal président assemblée nationale weeru novembre 2007 comité directeur bu PDS dogal ne day supprimer poste numéro 2 ba Macky Sall jiite woon ci biir parti bi dolli teg ci ne dañuy wàññi mandat am ca boppu assemblée nationale jëlee ko juróom ba ci benn at. lenn dong waral li ni mel muy sañ-sañ ba Macky Sall amoon bay convoqué Karim Wade ci assemblée nationale ngir mu tontu ci ay laaj ñeel ANOCI ba mu jiite woon. Macky Sall faf tekki ndomb tàkkam ca novembre 2008 1er décembre 2008 mu sanc APR yaakaar ak fanweeri cadre yu bàyyeekoo PDS. Macky Sall ak APR soobu ca élection locale yu 2009 ànd ci ak Benno Siggil Sénégal ndam lu mu ci amoon jubali bëtam si président de la République. ak yeneen i parti sas ko ngemb ko ngir mu jiite coalition Macky 2012 ci pàcc mu njëkk mi moom ak Abdoulaye Wade rëcc ci rawante gi Wade jiiti woon le 26 février. ñu teg ci weer maanaam le 25 mars bi mu doon ci jongante ak Abdoulaye Wade askanu Sénégal tabb ko fal ko mu nar a wuutu kii di Abdoulaye Wade Macky Sall nar a doon ñeenteelu njiit mu Sénégal ba réew mi moomee boppam ba léegi.